nous sommes choqués euh, et nous avons un cœur meurtri mm-hmm. animé par un sentiment d'angoisse mm-hmm. de tristesse et de peur relatif au comportement aberrant et accablant mmh. qui règne en maître et qui n'a pas sa raison d'être et qu'on a remarqué depuis un certain temps. Et aujourd'hui, l'urgence interpelle à tous les acteurs politiques, sans exception aucune, et la presse, de se retrouver pour qu'il y ait une symbiose de nos actions pour faire face à ces actes de barbarie. dafa ñaaw te réew mi ñun ñëpp dañ ko bokk ñu am waar wuñ ci war a bay ñu war ko bay ci yar ñu war ko bay ci teggin ñu war ko bay ci xam-xam te di wax ñu ko def leer de la pensée unique est révolue on ne peut pas empêcher aux wax seen xalaat moo tax jàmmal Sénégal ak dix partis ak ay mouvement yu ko dajale ñu taxaw ngir jàmm am ci réew mi ndax réew mi bu ci jàmm amul ñun ñëpp duñu am jotu toog bay exercer li ñu bëgg exercer politiquement quelqu'une boo xam te ni dafa contribuer au développement de ce pays teg une structure pour lutter contre le taux de chômage chronique qui règne en maître mu nekk koo xam te dangay gis aussi ci doxalinam ci nekkinam ci jëfinam day am éthique ak déontologie mm-hmm. mën na nga ko waxal lépp mais doo ko waxal ni dafa am fu mu far ku mu toog rek nga jàpp ni moom daf lay sajaxal fekk dëgg moo ko tax a jóg parce que dafay bëgg informer juste et vrai. Mm-hmm. bu ñu demee nag ba nga xam te réew mi kenn amatul sañ-sañ wax. Mm-hmm. li nga xalaat ça devient grave. d'accord moo tax ñu ngi interpeller mm. toute la classe politique waaye di ci jiital l'État. Mm.